కొట్టి ప్లేస్లో ngi noonu mi ngi noonu gis ngeen ko ni ah, Habib euh, vraiment Habib yow comme yaa ngi côté boobu man maa ngi ci côté bii nga xamante ne tey jii mooy wàllu man ci laa nekk man ak sama doomu nday mi ah, Aziz Abdou Aziz Guèyeul si lycée tey nag dama koy wan ni man booy town laa day dinaa ko yëgal ci kuwaat bi dawal ko xam nga la xam nga la Habib léegi bu ko defee nag man ma ànd ak sama git mu won ma kii zone bi yëpp sama git kaay ma laaj la. Aliou baaxul ko ma naar ku léegi tracé bi laa bëgg nga wax ma léegi nga expliqué ma nan muy demee. waaw mais donc c' simple ah donc euh, bienvenue yéen ngi hôtel Salima donc tey 15 août ñu ngi nii war a mën def benn tournée boo xam ne euh, dañuy dem defi balade en quad. en quad moom la def. mais nag balaa encore bi dafa ay piste fu ñuy jaar mhm. c'est-à-dire dañuy dem dem euh, xorom sa c'est-à-dire lac bi exploitation sel bi ñu xool nu muy demee suñ fa jógee tamit ñu dem jël bu ñu demee géej géej dinañ gis fa tudd première porte fa la gars yi génnee pour ñuy sangoog ñooñu bu fa jógee aussi ñu demaat si piste balade boo xam ne dañuy def les dunes de sable mm-hmm. foofu tamit di ngeen gis ay dunes yu kawe donc yoo xam ne sax ñu bëri xamuñu ne am na fi Lac mm-hmm. donc suñ paree ñu doog a def retour doog a ñëwaat ci hôtel bi ok léegi rek ñoo ko déggandoo ah mbokk téléspectateurs yi Habib yow teel ma foofu antenne bi ma dem ñëw ànd ak gars yi ma yóbbu sama doomu ndey bi ñu balaat balaat ànd ak pisco pisco le sele so barke Rasulaay allez let's go teel ma nii sa gars ñu ngi noonu di départ. waaw di départ am di fi mel nii nag war a def tour bu garaaw mais am di fi mel mooy dawal bi. waaw maay dawal kat bi de. waaw ngi nii di di génn hôtel Salim. Ah, di def benn parcours. parcours bi xam nga vacances. vacances dañuy boo liggéeyee ba ba sonn. ba sa xaalis bari. ba sa xaalis bari. da nga koy dem yàq. da koy dem yàq noos. noos yàq sa bopp. yëg sa bopp tuuti. waaw parce que xam nga vacance dafa baax. fi mu nii ñoo ngi woo ñëpp. bàyyiwuñu kenn. na ñëpp ñëw see Salim. waaw ñi ñëw foo ànd ak. waa woon Paul Kër Massar. di nga xale yaa ngi nii di dugg si. waaye ne lañuy wax léegi affaire yi léegi mu commencé. ah ñu ngi see Salim de. maa la wax la ñu ngi génn see Salim. ak ak 2 waaw jaajëf waay gars yi. ñu ngi di waay di génn nii. di dem nag jël yoon bi. am di acca ñoo ngi di dawal. waaw jël lañ yoonu lak bi nag. war a dugg si lak bi. tey ñu gis luñ ma sa gis am di ma ngay ma ngay maa la loolu. lii maa jàmm la. waaw xale koy def. foo xale nank. am di déet am di déet. ñoo moto da koy mën. Ziz moto la ngay mën. ñoo ngi dem si lat bi de. lak baa ngi nii de. jóge nag hôtel Salim. yow ban hôtel nga taamu Salim rek nga taamu. man Salim laa xam. boo bëggee noo soxol set. da ñëw see Salim. see Salim. maa la yéen ñi nekk Dakar daw leen gaaw ñëw. affaire bi de ndëkk bi yëpp ngi wax see Salim. ñu ngi si lat bi lekk gi neex na. sell na sell na. 2STV ngi si lat bi de. mais Sofia gis nga ni ñuy ni ñuy ni ñuy ni ñuy doxalee. li mooy balade balade boo déggee balade mooy lii waaw léegi nag ñoo ngi ñoo ngi egg nañ ci lag euh, egg si nañ fi fii mooy fan. waa fii ñu nekk nii euh, Lac Rose a ngi nii lii mooy lag bi ah donc gis nga dañoo arrivé juste gis ñi nga xam te ne ñooy def balade en pirogue ñoom ñu ngi instant bi dugg nañu donc ils ont à vingt cinq minutes yoo ne dañ koy def euh, ci pirogue bi. donc pirogue bi comme ni nga koy gis nii du machine ah bant moo koy dawal ah waaw pirogue bi gis nga ko moo yor bâton bi moom lay samp ci biir ah, bâton bi mooy orienté gaal gi donc dañuy avancer tuuti ñu xool gars yi. nañ avancer tuuti am di ñu avancer tuuti. nañ avancé tuuti xool gars yi père am léegi noonu di wàcc pilote bu mag bi mais am li musuma xam ne ni nga mel. no ah, ah, ah, xam nga jeunesse danga koy marqué. Uh-huh. da ngay mën da ngay mën a da mën a def sa jeunesse. Uh-huh. fo daal borom xaalis koy def. borom xaalis a koy def xam nga. mais père am di teel micro bi tuuti xaw a kii xam ni. xam nga milliardaire day sol soox sol caaxax di dox ndànk di balaat boppam ànd ay gitam. waaw ñii Abdou Aziz. waaw ñii ñu am importance lañ ci biir lak bi. biir lak bi parce que ñoo lay nettali histoire yi. ñoo ñoo lay. Mhm. ak xorom bi ñaata mètre. lan mooy cosaan bi lan mooy cosaan bi te est-ce que xam nga ni Afrique de l'Ouest. Mhm. ñun rek am lii ñaari pays ñoo ko fi am ci àddina. Mhm. Afrique de l'Ouest. dama dégg ne Afrique de l'Ouest. ñaari pays ñoo ko am lii lak bu mel nii si àddina. waaw. muy muy muy muy muy ban dëkk man da xam naa ne Sénégal am na ko beneen dëkk bi fan la. <laughs> daal ñu koy wax bari na waaw. waaw donc euh, mais ñun moom bi ñu ci gën a jàpp daal mooy suñu lac mooy lac rose bi. waaw donc gis nga pour le moment nii rose gul parce que dafa am ay ndoxu usé yoo xam ne ñoo ñoo ci lac bi. donc ndox moomu noonu ñu ngi def le tout pour évacuer ko mu dem au niveau de la plage. donc une fois mu génn dinañ dinañ retrouver waat couleur normale bi nga xam te ne mooy tax ñu mën a am couleur rose. donc gis nga ko mu ngi nekk ni nag fu mu toll nii mhm. boo doon pesé deux cent kilos sax boo ciy sangu cent kilos boo doon pesé deux cent kilos ok waaw donc loolu parce que concentration sel bi xorom si moo tax. loolu moo tax. fii nit du fi lab benn espèce mënul dund ci biir parce que concentration sel bi ci biir moo tax dafa am xorom. donc euh, loolu moo tax waa boo sangoo sax mais dañ lay dañ dañ dañ lay wax nii booy sangu. Uh-huh. waroo weesu quinze minutes te booy dugg tamit waroo dugal sa yaram bi yëpp. sa bopp bi faaw muy feeñ. waaw parce que boo xoolee ñi ñiy jël xorom bi sax ñoom seen jëm bopp ñiy jël xorom bi dañuy teel a ñëw fajar gi parce que lu tax bu naaj bi tàngee xorom si day lakk seen yaram. bu naaj bi tàngee bi tàngee donc dañuy obligé ñoom jël ay beurre de karité seen yaram. Mm-hmm. parce que dañuy bañ euh, peau bi donc loolu moo tax ñoom ñoo noonu la ñu mën def pour ut xorom si. Mm-hmm. donc tôt le matin la ñuy ñëw bala muy naaj. Mm-hmm. lu mu gën a teel gën a baax. waaw lu mu gën a teel gën a baax lan nekk fii. waaw fii di sol ay defar place yi nga xam ne ni moo wër lac bi. ay décoration quoi. Mhm. pour def ay ne mooy nekk au bord du lac. Mhm. gars yi fa la ñuy toog yenn saa yi ay lakk jën ak affaire yooyu noonu. Mhm. comme yi am Mali boog am quelque part. moom la ñuy bëgg a def fii. léegi bu ñu jugee fii fa lañ jëm. waaw ñu jugee fii nag ñu ngi attaqué dune de sable yi bu ñu paree dune de sable dem plage ba. bu jugee plage doo ko hôtel. acca am di kon nañ dem gars ñoo ngi dem ci dine de sable yi ate 2STV ngi noonu seen mbégte rek lay topp saa su ne ci vacances yi fépp foo mën a nekk xamal ne 2STV yi dina ñëw ñu ànd def ambiance ànd kafre waaw ah, mu mel ni dañuy wéy ah. demee tam dinañ gis foofu tamit euh, di gis piste bu garaaw ah. mhm. parce que ay filao la ngay gis filao yoo xam ne fa la kuwaati di jaar ba keroog ngay gis plage bi donc daal vue bu rafet ngay am foofu. waaw 2STV euh, initiative bu rafet bi mu def ànd ko et hôtel Salim war fee nekk ba dimanche gis-gis boobu lan la ci wax dëkk bi am. waaw bon donc loolu dañ ciy sant yàlla bu baax parce que tamit euh, gis-gis bi nga xam ne moom la ñu war a mën a am. il faut télé yi comme ñu mel ni 2STV. ñëw wane li nga xam ne moo nekk suñu réew. suñu doomu réew yor ko. xam ne dëkk bu riche xam ne dëkk bu riche la. Mhm. ñuy conseil ñëpp fi découvrir si ko. dégg dégg nañ fi Boy nañ fi Eumeu nañ fi Modou Lo dégg fi Modou Lo kon donc gars yaa ngi fi kon kon kon ñu dem ñu dem ci sable acca ko père Amdi taalal ma xool père Amdi mbaa doo marché arrière lii père Amdi ñoo ngi départ ati de ayca nii rek toogal bu baax toogal bu baax toog na ah da ngay arrière waaw lii mooy arrière père Amdi nànk lii mooy arrière père Amdi nànk bi may arrière. peraam di nang. léegi boo defee nii da ngay def nii. acca acca mi ngi noonu ñoo ngi jugee ci lat bi léegi nag ñu ngi dem ci saabal bi maanaam dem ci euh, suufu géej bi dem ci géej gi wan leen lan mooy cosaan bi ah. desitsi fii saa yu ñëwee day xool bëgg bëgg askan wi mu mën leen ko hôtel Salim lañ dal vacances de ouf waaye eh, waa Habib maa ngi lay ziar bu baax Sofia defe naa ne gars ñoom Sofia ak fi mu ne nii ñu ngi jàkkaarloog yow. waaw ñu ngi jàkkaarloog man nag fu mu nekk nii ni na ma père mag moom moom balaat balaat boo gisee xale yi jox ma ko mooy xam nañ équipe bi mag dafay soxla yii. waaw yii nag boo koy def nag. kon euh, euh, du xale rek moo war a fo. du xale rek a war a fo mag a war a fo. mag bu liggéey ba retraite wala mag boo xamante ne liggéey na ba sonn ñëw ànd ak soxnaam ñëw di def balaat. waaw mooy lii. lii nag am di da nga sax ah yow. su ma neexee jug taxaw di. kaafara déedéet am na déedéet am na am na bul jug. xoolal dawal caay yi ma ko def. Eh, am ni. déggoo ma ah, mi ngi noonu ñoo ngi ci lat bi gis ngeen ñoo ngi noonu di dem ci sable bi maanaam ci suuf si. bu ñu fa jugee daal di dem fi nga xam ni ku ne xam na ko mooy place bi. maa loolu. béy dee ngi noonu mooy sunu caméraman béy di. waaw. ah ñoo ngi noonu dem ci toit yi. am di am di nànk. waat yaa ngi nii. waat yaa ngi nii. mbay di quad yaa ngi noonu quad yaa ngi noonu xale yi di waaj ah feral sa xol desestiv yi lu kenn mus a gis mooy def ah mi ngi noonu am de ngi noonu mooy sama pilote am di yaa ngi dawal de maa ngi dawal de bilaay xale am di yaa ngi def yëf yi xale de ma ma mag bu delluwaat am di baadu du këpp mag bu dellu du si ah mi ngi noonu toppal tracé bi rek ñu bañ a daanu. doo daanu. loolu day gën. waaw Sofia lii xale koy def. Habib bi dafa naa ne ay mag ngeen. waaw lii yëfu mag la. mag mooy ànd ak tranquille di dawal ay quad. dawal ay quad. waa si ñu ngi jaajëfal. 2STV. ñu ngi def yu mag. waaw. Seye El Hadj fooloo de. <laughs> waaye foo day xaalis waaye day ànd ak li bisu ngoone wax sama xel dem na ci moom. ah. nee na ma mi ñëw ma ko am ah, na foo day xaalis. non non li wax dëgg la foo day ànd xaalis. maa dox loolu dugg ku leen jéeme li mu la wax dëgg la. fii nii moom. ñoo ngi ci filaawoo yi de. ñu ngi ci filaawoo lépp dugg kon tii fees na. secret bi nekk ci filaawoo yi mën naa la koo wax. loolu laa bëgg sa bañ di metti doomu filaawoo yi da koy faj. nga ni ma. maa la wax loolu loolu lépp deuxième bi wane na ko laa ilaaha illallaah am di jëm ca géej ga géej ga lañ jëm am di moo tax laa ilaaha illallaah am di montagne yu saaraaba lañ jëm montagne saaraaba laa ilaaha illallaah fii may diin bi xam nga lii big taf mënu ko de déedéet xale yi mënuñu lii boo des fois nga dawal ba si nii sa loxo xoolal xoolal xool ma deen eh am di maa lox loolu baa doot léegi sa loxo suuf si téye ñu déedéet kii tenket jërëjëf bay dee ngi noonu bay dee Béy daa mel ne yaa ngi lox Béy di loxul de Béy di ñoo ngi ci filaawo yi tey moom man moo ëpp doole maa lox lool hôtel Salim hôtel Salim ñëw leen ci 15 août bi ñu feetu ba mu neex maa lox loolu paccax paccax yi dund sunu dund loo fekkee am di am na ñuy sunu xaalis waaw Abdou lii may ñam ni bëgg naa ñam ci ah mbaa dama ko ñam këpp Abdou Aziz xoolal li ma koy dawalee am di yaa mën a dawal lii de am di bu dee sa àdduna lii lépp dawal nga yaa ma papa yaa mën a dawal xoolal déggal booba eh, xale boobu la mu woyoon laa lay wax de ngolli ngolli ngolli ngolli ngali ngali eh, baba na ko de maa la lool waaye waa 2STV ah waaye 2S moo man waay vacances yi nag deux heures leen man de loolu kenn waxatu ko ah ñu de ci saabu yi de maanaam dama ne